وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصف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 rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajal kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki jullit yi ni déglu yëpp ñoo leen di nuyu di leen ziyaara di amaan mbégte ci àndaat ak yéen ci seen jataay bii di yoon wi nu tolloon rekk ci waxtaane Cheikh Ahmadou Bamba de anhu ak aw meloom tey nag ñu war a dugg ci ay jikkoom moom sëriñ bi waaye bala nu agsi ci jikko yi dëgg-dëgg dañuy jëkke li aju ci jaamu yàllam xam ngeen ne jikko dëgg-dëgg ngëm moo koy lal gëm yàlla gëm yàlla itam balaa mat faw ndigali yàlla yii nii nga taxaw ci ndigali yàlla yooyu itam la koy rafetal dëgg-dëgg di ko taaral mooy jikko ju rafet xam nga ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa yàlla tëgg ko ci aw askan tëgg ko ci alal tëgg ko ci julli yu bari tëgg ko ci lenn lu weesu jikko ju rafet wa innaka la ala xuluqin azim sëriñ tubaa nag ngëm yàlla googu ñu wax noonu mën nañ ne moom da lu dëgër ci moom moom dafa gane feeñ jamono rek yàlla xiir ko def ci xolam mu bëgg yàlla bëgg gu rëy gëm yàlla itam gëm koo xam ni monsieur Fouta gis gëm gu dëgëre noonu moom Sëñ Tuubaa ci wax ne <coughs> Sëñ Basiru nee na mas na maa wax ne ma <coughs> maa ngi sant yàlla ndax day amut lenn lu ñu war a gëm loo xam ni ba ma xàmmee ba léegi gis naa lenn lu ma ci war a yokk waaw li ma war a gëm lépp gëm naa ko ngëm gu mat am naa ko nee na ma ko ne ko waaw ba nga nekk ci tukki ba yokkoo woo ak ngëm moo ne ma boo fekk na maa ngëm gu mat la ma fa yokkoo kay weesu wut nen daa muñ sax ne ma weesu wut xanaa maarifa billaahi mooy gën a xam yàlla gën a àgg ci moom gën a am yaqiin ci moom ak xeeti maraati bi ak maqaamaati gaa yu baax yi waaye jëmmi ngëm moom daa dama xàmmi rek yàlla defal ma ci tawféex yi ma am ci lu doy sëkk lu mat sëkk ngëm gu dëgër bër mooy yàlla yëmalewu koog dara moom sëñ bi lépp mi da ko joxoon yàlla subhaanahu wa taala dinaay wax ne moom sëñ bi boo seetloo jëflanteem ak yàlla li ñuy wax ubudiya moo ci gën a fees mooy nekk rek dib jaam boo xam ne dafa nongu njaam gi di ko dund itam digganteem ak borom tabaaraka wa taala lépp mbir mu jox ko yàlla waaye fi ne bala ngay seet dama lu lu mu jox yàlla da ngay gis ne damal da ko xeeb joxaat ko leneen ba deseetu dara man na ci misaal ci wenn bayit rek mooy li mu wax ne lahu dahra niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani niyaati mooy sama yéene yépp laa ko jox wa ilmi xam-xam bi jox naa ko ko lu ma lu ma a xam rek jox naa ko mooy di ko def ci li ko neex ak lim gërëm moom subhaanahu wa taala wa xidmati mboolem lu may jëf itam di ko xidma di ko def ci kaw suuf lépp jox naa ko ko moom suñu borom tool daal wa ruuxi sama ruux jox naa ko ko wa jusmaani wa kulli mboolem dal sama lépp rek nga xam na lu seetlu foofu bayit bi da gis ne lu mu joxe fi mu ne da gis ne loolu day mel ne ko xeeb joxewaat la ci des bu mujj daanaka des joxe léppam rek noonu la koy toppee lisaaniya wal awsaalu abdan lahu bihi sama lam weeg sama cër yeeg yëpp noonu la ko doon toppee di ko jox benn pour benn lahurti xaali wa ilayhi sakkani maanaam bu may sama dem ak samak delseeg sama dalak sama yëngutoog lépp jox naa ko yàlla bihi uaadi wa bihi uwaali ku may noonu ci yàlla laa lay noonu ku may àndalit mbaa ma lay bëgg mbaa ma lay gërëmit ci yàlla laa lay bëggee moom laay ànd ak yow moom la wax ne bihi uaadi wa bihi uwaali wa huwa mutaali waali xubbiya fi llaahi wa buxdi fii maanaam sama bëgg bëgg gi may bëgg nit mi ngi ci moom fa mu toll ci yàlla rek ak diggam ak suñu borom ak na na yàlla digle ñu bëgg kooku mooy ñëpp ku may bëgg rek dama lay bëgg ci yàlla ku may bañ dama lay bañ ci yàlla mooy la nga def benn daa naqar yàlla wala yàlla bëggu la mu bañ la ngir yàlla mi ngoog kon loolu mooy digganteem ak subha sunu borom tabaaraka wa taala mu nekkoon ci ngëm gu mat sëkk koo xam ni dara raxu ko àggoon na ci daawut sàkku ci benn mbindeef dara moom Sëñ Tuubaa si Basiru wax na daana wax ne ida massani durrun aw ixtajtu ad'uhu du'aan xafiyan ba'dama laylu qad daja mooy su ma amee jenn yitte wala jenn aajo damay woor ak yàlla ñaan ko ci bu guddi gi demee ba sori ma tàllal sama loxo ñaan ko ko waaye duma ñaan bindeef dara maddu yadi li xayri dil jalaali indi min ad tàllal sama loxo ku may sunu borom tabaaraka wa taala allah borom màgg googee nee loolu ak réer laa ko jàppe ak réeral ka ngay ka nga koy ñaanit ak ka ngay sàkku ci moom it loolu laa ko jàppee ndax day ngay jàpp moom day mën naa jàpp ne man na dara te fekk mënu dara suñ bési wax na ne daana wax ne sàkku dara ci nguur gi loolu ak kéefar moo ko kéefar ñoo yam ci man noonu la doon moom suñ Tuubaa ba tax na fi ne mësta tàllal loxoom ku may suñu borom tabaaraka bi nga xamee ne sëñ Mamour ànd sari jóge na fi gis ngeen ne bëggoon nañ ko booleek buur bi fi nekkoon boobee teg ko fi wetam ci li sëñ Mat Lamin Jóob da nga na li waaye lu mën a xaw rek xasida gam ca def oo sa wax jooju am nay wuute ak i wax waaye li ma bëgg yéen rek mooy xasida gi <coughs> gam ca def dajaa feejal bu wér ne man lu dul yàlla soxlawuma ko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 te doyloo naa ko te lu dul xam-xam ak ak ak diine soxlawu ma ko bëggu ko gis nga dafa wax ne ana u fawidu ana u fawidu axwaali liman ajazu an xaali anfusihim ajsal masaakini gaa ñi nga xam ne ñoo gën a lott miskin yëpp nga xam ne mënuñu dara ñoom buur yooyu noonu ñuy wax nan laa jël sama mbir yépp di ko wér ci ñoom xalaatuma ko in kuntu daa xasanin aw kuntu daa watarin in kuntu daa watarin aw kuntu daa xasanin daxawtu dal ayni qabla raa wa siini su ma amee jenn aajo wala ma am lenn lu ma jaaxal wala lenn ñàqare damay woo borom arash mooy subhaanahu wa taala yàlla subhaanahu wa taala loolu juróoloon na ko ci njëlbeem ñëpp jàpp ne xel mi damay la digal dafa neexut gis nga moom sax wax na ne qaalu safihun li sarfi anhumu basari wa ragbati an dawil isyaani fi l bashari mooy ñoom ñëpp maase nañ ci ne man sama xel neexut ànduma ak sama sago wala sama xel neexul te li ko waral mooy li sarfi anhumu basari mooy sama bët laa tegul ci ñoom ak lañ am ñoom nit ñi sama xememteef bépp mooy suñu borom tabaaraka wa taala kon foofu la nekkoon ci gëm yàlla ak bëgg ko bu dee jëfe ndigal yàlla itam de su ci gis moroomam ak kemam ndax mooy jëmm joo xam ni mësula tiim ci dundam lu yéemoo ngi noonu ma jëmm joo xam ne mosul a tiimal tiim julli benn yoon sëñ Basiru nee na benn yoon la masa tiim te wax nañ ne ba mu amee ndox da ko fay loola la ko waraloon mooy booba dafa am fu ñu doon dem jëru dugg ci net li ba waaye ba ñuy dem kam joxoon satalaam kooka sëñ bi xam naa doxub sëñ bi daa gaaw ba sëñ bi jiitoo ko lu bari ba mujj ñu réeroo ci yoon wi bi waxtu jotee sëñ bi wër dëpp wër wër wër gisul waa ji mu dal tiim ba mu demee ba waxtu wi nar a jàll mu dal tiim julli keroog la mujj dénkaane ak satala fu muy dem moo yoral boppam ak satalam te li doyoon mooy moom yàllaa ko natta woon jëmm ji léeg-léeg day bari ay ay wéradi yu metti yu ko sonal rawatina ay xeeti taab wala wala yu demee waaye suñ Basiru nee na teewul faw danaa tiim loxo bi wala ci jëmm ji nee na mas bu mas bu masaa am ab gaañu gaañu ba mu takk ko ni nga xam lislaam may na la nga masaa ci kaw gaañu gaañu bi ci kaw li nga takk ci moom ci kaw gaañu gaañu bi waaye moom loolu mësu koo jëfandikoo fu jàpp jote day tekki lam takkoon ci ci ci ci ca gomba wala ca taab ga di ko raxas raxas yoo xam ni suñ Basiru nee boo ko masaa fekk da jàpp ne. loxo bi daa daa ci jëmm ji nga da koy bomb deret ji di tuuru ànd ak dëtt ji mu di ko wax naa ko yow yaa xam bu la neexee nga deretal bu la neexee nga bañ a deretal man lu mën a xew jaam laa bu yàlla digal ma bomb la nan lay waxe nan lay wax ak jëmm ji ak ak ak cër bi noonu la meloon <coughs> bu dee ci njàpp itam wax nañ ne mooy jëmm joo xam ne mësta tàggali ko akum njàpp mësta julli itam ñaari julli ci benn jàpp masan tisbaar ak takkusaan nga jullee ko benn jàpp loolu mësu ko def ci dundam moom sëñ Tuubaa sëñ Basiiru nee na daana wax ne man du ma jëfandikoo ay seel du seeli diine du seeli aada nee na seeli diine mooy menn njàpp nga julli ci ñaari julli farata moom mësu ko def ci dundam lu yéemoo ngi noonu bu ma saa déggug nodd lu ko wéra di tënk-tënk du tee mu jug julli ji mësu déggu nodd te néew néewut bërit dem wuy ji sëñ mat lam ñëw dagara nett li na ca gànnaar jamono joo xam ni nee na booba wéradi gu ko dal goo xam ni sax dañuy wax ne booba day lu naroon a dal ci mbindeef yi balaa musiba boo xam ne yàlla da ko wàcce ci mbindeef yi mu gis ko yàlla wan ko ko mu ñaan yàlla yàlla teg ko ko te bàyyi nit ñi bokk ko yàlla tege nag mu àgg ci wéradi ga àgg ci da nga am metti mettit woo xam ni mujj na mënta yëngal benn cër waaye teewul fu ñu nodde rek dana ne bërit wuy ji julli ji ca jàkka ja nee na bu mujj nee na dañoo mujj eh, maanaam waxtaan ñoom mutu yam nekkaloon ni nañ bañ a nodd ca kaw bu nodd gi jotee ñu wax nodd ko ndànk julli ba noppee nag doog ko yëgal ne ko waxtu jot na ndax nii mu mel daal daal wax dëgg yàlla dañ ko war a yërëm ci ni jug beeg ak ñëw beeg julli si gi foofu la nekkoon bu dee wàllu julli itam mooy jëmm joo xam ni mësta julli ci digg waxtu waxuma la ak mujj waxtu waxuma la nga faar julli moom mësu ko def ci dundam digg waxtu bi mësu julli moom fu fu julli jote ci njëlbéenu waxtu walay julli ki ñu wax Cheikh Abdul Wadud ibnu Sidi Abdal sëñ Basiir wax na ne euh, al na ko tudde al aalimu sunni nee ku fonk sunna la moom sëñ boobu nee na sëñ Bassirou nee na kooku moo ko net moo net li ne mas nekk ak sëñ bi diir boo xam ne dañoo tax ko diir bu yàgg waaye neen daa seetlu fu julli jote rek lu mu tàng-tàng bu dee bëccëg danaan bëreet fu ñu noddee rek fa saasale daal bëgg a julli nee na benn bis ma ne ko tisbaar ji mënoo ko bàyyi ba ba mu xaw a sedd tuuti ndax daal nag ndax tisbaar yaatu na waxtaan bi ne mu ne ma inni uridu an afala inda amri mbir mu ne fañ ma ko digale rek laa ko bëgg a daal defe bëgguma caa teg benn di xaar moo tax mooy koo xam ni mësta julli itam ci lu dul mbooloo fu mën a nekk ba mu des diir bi nga xam ne tubaab yee ko tënk ci bërëb yoo xam ne nekku fa kenn benn jullit bu dee ci bërëbam yi itam yëpp moo daa jiite ba ci gaaw bi ko fi ba ba ñaari fan maanaam ba ba ni mu wujjee borom subhaanahu wa taala ci ñaari fukki fan ci baraxlu ca gaaw ba nga xam ne maanaam diiru muy man lépp mi ngi julli si ba ci gaaw bi ca fajar la mujj julli si da nga am dibéer altine mu wujj borom subhaanahu wa taala mooy jëmm joo xam ne itam mësta nelaw guddi guddi gépp da ko daa dundal itam fi mu ne fi mu tàmbalee guddi gi ma bu timis jotee fi mu ne bu timis ma saa jot bu jullee timis dana sëñ Basiru neen daana daana julli foofu ñaar rakkaa yoo xam ne li ci ëpp bàqara la ci tari ak Ali Imran mooy juróom-ñaari isib ak nisib ci ñi naafila googu itam ne ak ñaar fukki atam yu mujj li ëpp ci li muy def guddi mooy jàng alxuraan ak bind njëkk loolu nag ñaar fukki at ya ya ya ya ya jiitu moom la ëpp lu mu daa def mooy julli guddi gi da koy julli ak di tudd yàlla guddi gi nee na saa yoo masaa jóg guddi <coughs> xool néegam dangay dégg kàddoom muy jàng walla nga seen làmpam muy leer ku masaa woo itam lu guddi guddi boo ñëwee wuy ko di di gëmmentu nii day wax ne subhaana mën laa taaxuduhu sinatun wala nawm tudd yàlla day def da ko yéem loolu nelaw yi sëñ sëñ Abdou Lahad daana wax ne nelaw guddi ak wut waxtu tëdd ginnaawam lañ ko xam diir ba mu fi ne guddi gi daanaka mag ñi kenn dawu tëdd na waxtu ne mën na laa te bu la wooyee doo bëgg mu fekk la ci ay ngëmentu ak ciy nelaw guddi gi itam lu cëpp ci daa dem ci armeel ya ni ko rasulullah sallallahu alayhi wa daa defe nekk noonu moo tax mësta am néegu tëdd néeg boo xam ne nii def nii nga xam ne am néegu boo xam ne danga koo defar ngir bu tëdd jotee nga dem fa tëdd di xaar nelaw yi ñëw ngay wëlbatikoo wëlbatikuwaat ngeen xaar nelaw yi agsi loolu mosu ko am moom lim daa noppaloo ko su néew wax nañ ne fii mu toog la koy defee nii te naan gàmm noonu rek waxtu wi ñuy waaj tëdd ni dañ ko seet mu ne gàmm ni man luy xaw a géej ci biir waxtaan wala yu nu demee waaye bu jeexee jeex na guddi gi da koy da koy da koy dundal. noonu la meloon itam ci koor ak ak maanaam ak lekkam ma ne bëriwutoon suñu bisir daana wax ne daanaka daana yatt wi layaali wala yaam daana toog ay fan yu bari bari te dara du dugg du lekk dug naan ne dadaa woor daanaka diir jamono jëpp ba mu des yenati fan yu ñu aaye ko ko woor te ak lekkam bu demee bay lekk fi ne masalan dafa am yoo xam da ko aaye woon ci boppam da ko aay da ko da ko da ko jaayante woon ak yàlla aaye ko boppam nga xam du ko jëfandikoo bokk na ca ñaar ñaar neex lu mel ne suukar ak ak soow mosu leen a boole xewlu wala suukar ak café wala suukar ak ataay xeet yu mel noonu lim daa xewloo itam nga xam ne mooy mooy lekk gu naqari googu ñuy wax na nga xam du ci def daray suukar laa xub xoññ wala yu demee wala yéen demee suñ bësir nee na bu ca noppee da nga jàpp ne ab xale moo doon rëdd ay baaraamam ci kii bi rek day dara du ca jóg <sighs> mi ngoog mu waxuma laa nag jëfandikoo lu lënt mbaa lu lewut loolu moom mosu ko defam waxtu ne itam mi ngi ci tudd yàlla waxtu ne mi ngi ci tudd kon loolu mooy gàttal gi mu jëm joo xam ne mësta wax lu ñaaw mësu koo def mësta wax nit it lu ko naqari du ci teewam du ci ñàkk teew ay jikkoom itam foofu lañ ko tàmbalee kon ci waxtaan wii di ñëw incha allah noo ngi jégalu ñëpp di ñaan yàlla mu defal nu ak roy ak ku topp ci mboolem li ñu fi wax lépp ci daraja Cheikh Ahmadou Bamba aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa anna mustaqiman فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون thank you